dama xam ne li ma bëgg a wax ab tënk rek laa ci def jàllale ko ngir ñu xam ne lii message la message nag du waxi kenn day doon loo xam ne day dellu ci borom bis bi ëmb naa ak cant goo xam ne yéene woon naa koo jottali ñu bari su ma tuddee suñu imam bi rek cant gi ma ko bëgg a sant ak li ma fi bëgg a wax su ma ko ne woon wottee naa ko kañ sa sëriñ bi sa maam ju tedd ji dafa naan ma moo ma gënal soxna soxna xuma su ma ko bëggoon sant wala ma jottali ay kàddu dama ko naan sunu sëriñ bi laa bëgg wax tuuti ci moom mu ne ma moo ma gënal te jataay bi dafa xat kon li may wax mooy bi sëriñ Tuubaa di julli ci géej gi liggéey moo ko taxaw na dem bu muy dugg ci bato bi la wax ne allama ni rahmaanu fii safina bi ànd na ni xadimu zil madina dafa liggéey li ji woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun nag ñu teew dama bëgg ñu xam lu ñu fi indi ba bu ñu dem ñu xam lu ñu yóbbaale lan moo ñu fi indi yoon woowu sëriñ Tuubaa doon dem ñun la doon liggéeyal moo ko wax sababu xaybatiya an allaha araada an anaala min ujaa wa an akoona shaafian li qawmi wa an akoona xaadiman fi dawmi moo ko wax yegg ba suñu borom wéet ak moom déyaale moom ñaan ko mu dimbali ñu yërëm ñu ràmm ñu ëllëg suñu borom nangul ko ko loolu ko taxoon dem ci géej gi kon kooku mënuñu koo fay kon bëgg naa ñu wax ci kaw baa mu ko ñetti yoon sant sëriñ bi waaye dama bëgg suñ ko àggalee ma wax lu ci war a topp kon jërëjëfe Cheikhul Khadim déggu dégguma de jërëjëfe Cheikhul Khadim euh, baa ñëpp wax nañu jërë jërëjëfe Cheikhul Khadim ok wax nañ ko ci suñu làmmiñ xam nga lu tax ma jaaraat ci dama bëgg bu ñu ko waxee suñu làmmiñ te ñuy ay gor as gor su waxee rek dugal na boppam dugal gi ñu dugal suñu bopp mooy moom dafa jaayante dem moom doon ànd ak la l'administration coloniale braver toutes les difficultés dugg ci géej gi dem Gabon coono bu ne mu daj ko fa li sëñ Tuubaa daj jëlal sóoratul baqarati ñaari téeméer juróom-ñetti fukk ak juróom ci ay natt yoo xam ne benn bu ci ne mbooloo mi yëpp réew mi yëpp adduna sépp attanuñu ko moom mu yanu ko moom sëñ Tuubaa wax ne mu ne loolu ci mujizaatu yonent bi la bokk wa min hajaayibi nabil mufaddali alayhi taslimaal alil mufaddali kawnu sinii taxarrubi mustaxraja min zamanin mada mazaya muxraja xat shubbihat bi ma min rusli jara illa lazina kulluhum xat fajara nee na ku mës a suñu maam aadama ba bisub tey ku mës a yàlla coono ya nga dajoon natt yi ñu la natt woon boole nañ lépp teg ko xaadimu rasulullahi moom sëñ Tuubaa mu dem delsi bi muy dem mayoon nañ ko mu ànd ak mbooloo nee nañ ko mën nga ànd ak fukk ci njaboot gi ñu lay jàppale mu ne soxlawul loolu daal di wax ne yàlla doy na ko wéttal doy na ko àndandoo doy na ko lépp dem moom dong indi ndam tey jii jërëjëfe seexul xaddim war nañ koo wax dëgg la naam waaye nag boo ko waxee ba noppi nan nga koy jëfee ñun sëñ Tuubaa julli da koo jaral mu def ko ci géej gi boobu wanewul kéemaan nee na boobu jooxe farata yi suñu borom moo ko jaraloon te mu xam ne yàlla suñu borom képp ku mu sàmm suuf si du la mëdd waaye géej gi du la mën a dara kon sëñ tubaa moomu suñu yaakaaree sëñ tubaa te muy dëgg war nañoo bëgg sëriñ tubaa te góor góorgóorlu ci mel melokaan woo xam ne mooy dëppook ay njàngaleem nañ dooni jullit nañ dooni murit nañ xam suñ bopp roy tubaab waruñu royum naar sax waruñu naari war nañ leen fonk ndax gën gi mbindéef ci ñoom la feeñee waaye ñun ak suñu pas-pas am suñu identité culturel doon ñoo xam ne ku ñu gis xam ne xam nañ suñu bopp loolu daal laa ne woon naa ko wax muy kàddu yu néew ndax sëñ li mu daj ndar ji képp nee na ndar rek nee na daj naa loo xam ne wala xaytu fii tilkal muddati fii tilkal jazirati maa la te adduban maa xayri maskurin ah rus naa di tudd li ma daj ci ndar nee na du ko tudd di teggin digganteem ak suñu borom te buñ jógee ndar ñëw ndakaaru saa su ne natt yi day yokk di yokk di yokk ba bisub tey ñu xam ne ba mu ñëwee njaareem la ne natt yi jéem ak paye ci des ak ku yokkute kon mbirum sëñ Tuubaa ni gën a dem muy gën a yëkkatu kon ñoo ci des ñu ngi sant sëriñ bi bu baax ni ñuy déglu waxtaanu xalifa yi sëñ Tuubaa yi di góorgóorlu boole suñu bopp doon benn